ñu dañuy persante rek dañuy yoone fii dafa am ku ñu jiitu ki tudd faat faati ku tudd faat faati moo ñu yoon ndax daf dafa mobiliser nit ñi délégation yaa ngi nii moom dafa génnee mu ne bu ñu ñëwee ñu ñuyul ñuyul ko Doucouré di ko ne nu mu taxawee quartier bi ñun ñëpp yëg nañu ko ndax Doucouré xale bu ndaw bu dekk Kër Mbay Fall fii ku am benn at rek xam na ko Doucouré mu ngi ci jumaa yi Doucouré mu bi ndox doon taaj ci koñ yi Doucouré ku am jàkkare Doucouré moo moo ci kenn na guddi taxaw na bëccëg ñu ngi ñaan yàlla suñu borom lépp lu muy mébét yàlla na ko suñu borom dooleel ko ba mu sotti amiin ba bis ba premier tour laa wax ñu dégg vive ku la jox ndekki bu la dikkee añ bu yeboo nga xam ni sa xel war naa dal ñun Doucouré moo dekk fii moom la ñuy xam ku ñu jàppale ku ne Doucouré la ñuy jàppale ndax Doucouré mooy suñu lox mooy suñu tànk mooy suñu bot kon càpp ku ñu ànd na rek doo ci am defet képp ku ànd na doo am defet ñun dañuy yoone sama wax du sori faat faati moo ñu yoone moo nekk suñu kanam dafa jénnee rek may yoone nuyoom ci Doucouré ak taxaway bu mu taxaw gis nañ ko ñu koy sant di jëram commencé na bisimilahi rahmaani rahim yàlla na ekkale alhamdulilahi rabbil alamin ki barke salatul fatiha ki barke yasin alquran nga xamni juroom ñaari mubin mo nek ci bir lool la ko ñaanal bismillahirrahmanirrahim الشيطان الرجيم أعوذ بالله ngi nuyu wa kër may Fall ñëpp maa ngi nuyu Doucouré Abdou Abdou Babacar Doucouré maa ngi leen nuyu du nuyu suñu leader du nuyu Ndey Fatou Ba du nuyu waa Kër Mbay fal yëpp bàyyiwuma kenn boo gisee ma jël micro bi tey man dama nekk géwélu juddu Babacar Doucouré dañ ne la jor lu la booloog tuba mun na koy yag tay bu ne kenn ku nek na nga ñibi sa dëkk man ak du kure ñoy and maraka la faa jigi dee eh maa ngi nuy nak nuy principal muy Abdou Karim Sall Torodo pulo mo ñaamata gàcce pulo mo suusaani gàcce pulo wi nee na moo jiba moo jibi ngel ta bonde di Abdou Karim Sall eh kure lu may wax yo la koy wax parce que Abdou Karim Sall dafa taxo fi nee kep ku bëgg Doucouré ma and ak yow ku ma soxla bo jaarul ci Doucouré du ma am Abdou Karim Sall moo ko wax Ababacar Doucouré yaay gor yaay garni nee la yo même bo demee ba yore ay bant wa keur Mbay Fall dañuy and ak yow Ababacar Doucouré lo am bokku nga ko wa keur Mbay Fall Baba Ababacar Doucouré boobu tam politique amul bu la neexoon mënoon ngaa toog sa kër nam moo dara da ne da ngay jàppale da ngay jàppale suñu leader bi saltooroo doo nga ne da ànd ak ñoom ñun waa kër mbay Fall ñu ngi sa ginnaaw loo wax loolu wax loo waxul waxuñu ko awa Ababacar Doucouré saltoor bu soobee yàlla ak yonent bi bu fekkee doom bu set wecc la nee naa la lii Macky Sall day daagu ci biir palais koo leen àndal Thank you. virgule xamuñu Moussa la maire parce que man dama gëm ni boo bëggee Macky Sall da nga dem ba mu jeex tàkk def say caravane politique ko campagne ko ñii ñoo bëgg président Macky Sall loolu laa bëgg ñu baax xam ko ci kattan yàlla ba xam président Macky Sall day am deuxième mandat Abdou Karim pareel ñu jox la mairie bi nga def Doucouré premier adjoint Sénégal nay wuyu tey woote Doucouré am na crédit nay wuyu tey woote Doucouré am na crédit nay wuyu tey يا يبركي ديم يا خدي الك الا بالي وفاس تاخول فاسا راو فاسا غاتا كانم نبير نبير نبير لو واي دفاتي نكو خيف نبير نبير نبير من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيغي سانت يالا دي جيرلي سيونت بي صلى الله عليه وسلم نيغي سانت دي گرم امام يفي تيغون ييب بوغونا دجي عبد الكريم

mané man gor la ñaari goro ma jur ma ñetteel leen ma maruma ma ngi sant yalla wa keur Mbay Fall xam nañu ndax demb la du tey yàlla dafa dogal ñu doon tàbbi ci social kese bu nawet ñëwee ñuy sonn ba quatre heures du matin ngir askan wi mën a génn ñu naw ma ci loolu ñoom ñoo ma tàbbal ci politique waaye fas yéene ko woon ndax dama ko daan faral di wax sama premier vote ci àdduna c'est en 2000 bi ñuy fal Wade musuma bëgg ndax yi si nekk rek façon yi mais dama ne Abdou ku ko bëgg danga may jàpp jàppale ko ndax bi may soog a ñëw limal na leen ko ci siège ba ne ñëw na juróom-ñeenti yoon fukkeel ba ma nangu ànd ak moom wax naa dinaa ko bër ki démb sama kanamu jigéen ñi parce que nee naa ko tey li ñuy def yëpp yow lañ koy defal ndax yow la fi président teg ngay coordinateur commune bi amul benen ku bëgg président bëgg and ak yow day top sa ginaaw ku bëgg ku la bëgg man ñi ma fi nekkal fi bari nañu ay responsable mais nañu japp ni nak man amna lu yalla dogal si man ndax bañuy dem 2014 ma dem seul yàlla dogal ma jël quatrième gagné 17 bureaux de vote yi ñu wëlbati ko ànd ak Abdou Karim defe naa boobu bu ñu àndoon kon tey lii fi ne du fi ne kon dëkk bi du mel nii kon dëkk bi du mel nii waaye loolu jeex na làmp bu fay la lii ñëw jaral nañu suñu bakken bu lii paase incha allah du ma daw du ma daay ku ne du kuré doomu aadama bu nekk nag dina wane boppam ndax loolu mooy politique politique base la politique base la ku ko amul amoo dara ñi fi nekk bu ñuul dara sax nañ ma jàppe cëru kilifa ndax 66 ans dootuma xale nag te bu ñuy daw duñ ma raw keroog ba ma àndee ak Abdou Karim mi di daw dama jiitu mu dellu ginnaaw xaw ma fan la ma mën de waaye du si te daw gi si terrain déedéet man maa la nangoo jox sa cër ba mu mat sëkk. wax sa baxu way du wañi ci mbaxu jàmbur dara sama mbax tous nit ñi ñoy safanal rek lolu nak fi la sax ci aduna ku wul yonent bi wo serigne bu yu baax yi doo bàyyi man du kure mu sew ku tuti bi comme ni nga waxe woon keroog ñi nga andalon demb nga bëgg mo boot nañu ñëw ànd ak man ñu bootuñu liggéey waaye bu ñu bëggee jiitu walla galgal yow lañuy ñuy sonal te loolu baaxul nañu ñëw topp sama ginnaaw ñu ànd liggéey ñu liggéeyal la nga sottil président lii président diggéey muy ñëpp na booloo nekk benn pour ndam li mu bëgg mu am ko lii rek moo ñu koy may kese am na nag ñu fedd géewu waaye nag dañuy wax ne jaan bu dofee xulool nit la xulool mbokk ma nit la man daal maa ngi sant yàlla bu baax di sant waa Kër Mbay Fall muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen jeunesse bi mënuma leen lim mais dinaa ci seppi daam Michel Ibrahima bu ma tuddee ñooñu rek boot nañu ñëpp ak Aba Ndiaye ndax moom de lu ne def na ko ngir man lu ne ñoom ñëpp depuis 2012 ñu ngi taxaw kon yaakaar naa ne loolu yàgg na. te dara fëkku leen dara muy mag muy ndaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xam ne aussi ñoo bokk nekk ci parti bi an ñu nekk ci siège bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te bëgg ñëpp ñu taxaw jàppale ñu ñu ànd liggéey ndax loolu moo may noppal mooy noppal Abdou Karim ndax mag boo boo ko buggee utal genn musiba day am te jaru ko jaru ko nañu góorgóorlu defaraat taxawaay yi xam ne li ñu ñor mooy moom mii fi ne te ngeen xam ne li mu fi def ci jeunesse bi mu tàbbal ñu jox leen ay liggéey kenn xamul nu mu toll te kenn ku si ne yaa ngi si faj di si fajal say waajur taxawaay boobu rek war na tax kenn ku nekk joxe cër ba mu mat sëkk fu mu joxoñ ñu war a dagg du ma wax parce que Baye Gora li mu wax si jumaa yi mët na ëpp na loolu sax dépassé na ko actuellement parce que dal bi moo toll woon foofu mais karo yi buñ ko si yokkee kenn du xam nu muy toll te man loolu rek moo ma ñor loolu ma ñor ndax yaakaar naa ne benn si bii depuis quatre-vingt-dix-neuf man maa fay courant ba kon buñ ko defaree man lañ ko defaral ñuy sant yàlla bu baax baax a baax a baax euh, samay doom nag ñu ngi fi Ndey Fatou Ba maa ngi lay sant bu baax dinaa tudd sa tur ndax li tax ma di ko tudd dañu defoon ne sama doom dafa toxu te toxuwul kon jërëjëf jërëjëf jigéen ñi ma àndal nag mënuma nekk di lim franchement mais bu ma sañoon kenn ku si nekk ma tudd sa tur surtout bureau waa kër du Doucouré le 10 bu ne ñu ngi dajé di def seeni financement di financer jigen ñi Mom Abdou Karim moko tambalé won mu yëkëti 1 million jox leen yalla dogal ma yëkëti wa 2 million def ci am fu ñu jëlee 3 million ñu ñëw def sa tay ñom ñu ngi financer kenn ku ne 60000 francs ñu jox lako nga dem liggéey. loolu yëpp nag dañu ko def pour jigéen ñi mën a am taxawaay fi ñu jëm ngir jàppale Abdou Karim ñu ànd defal président defar dëkk bi looloo tax ñu def ko fii nag Kër Mbay Fall awma fi frontière awma fi frontière mën naa la ne tool jaas gii bari na fi mu si xale yu góor yu jigéen kër goo fa dugg sama kër la ñu fere ji sama kër la ñu jàngee loolu du lu ndaw kon du ñu def lu dul yemale kàddu yi foofu ndax bari na képp koo xam ne nag fàtte naa la na ma jéggal ndax bu ma sañoon ñëpp dinaa leen lim ndax teewaay bi rafet na li taxone nak mu bëggoon sax Abdou Karim jëk wax dafa fekk mu bëggoon sama yaram gëna a ndax mom gëna mëna ñaaj waye benn la parce que dama leen wax ni politique tuñu sama rak la magam la lamay wax ak mom lamay defar ak mom kenn duko ku baña waxal lu rafet muy góor muy jigen, ku baña bakar waxal lu rafet lu way wax yaangi wax lo xamul ñaari gor ñoo mëna and ndax gor bu wul reer sax kenn du xamne reerul bu safaanoo nak bala 10h jot mu commencé yuuxu fo deg di deg deg nga yaakaar ni beye Karim li tax ma ñimee and ak yow moy la ma daan jëfé la gis yow te bayiwo fenn muy social bi partout mais lolu rek muy Sombaaw Petit Mbaaw Grand Mbaaw ba fi partout lolu rek lolu rek bu nit ñi goré war nañ lolu rek war nañu mëna jox lepp lu bëgg fi kese nga yëkëti sa ñàq tabax lu melnalé defal ko ab defal ko président Macky Sall muy chaise bi sha allah boko defon defoon château tey ay millions la lay gënël par wër mais wax leen ñu ban leader moko fi def mais nak na ngeen xamné gaay yi di nek si yi di coow ak mbow sen bop rek lañ ko def di ñaaw lami sen bop rek lañ ko def bu ñuy wote julit nañu romb parce que lutax lañuy la def yalla santu len ko kep kuy yee fitna bokkuloo kep kuy wax sa moromu julit safan ba pare bo teye talal sa loxo di ñaan sa borom naan ko jox ma rew mi ndax nga sa bopp do dem fenn président nak kenn degul ci mom lu ñaaw ndax keroog bi suñu góor gi ñëwee waroon na mën a tontu mais kenn déggu ko si kenn te nag li mu def si réew mi kenn defu ko si man de Casamance yi fi nekk bu ñu naan Sonko ma ne leen bu leen bu ngeen dem Casamance bu leen jaar si pont bi bu ngeen di dem jaar si bi ndax ñetti président jaar nañ fi mënu ko woon mënuñu ko woon mu ñëw réaliser ko. sama mbokku murid yi nag dama laa naan Ila Touba bi moom une heure trente nga egg jóge fi midi julli quatre heures et demi fekk la fi loolu nga daan dox si yoon wi économiser essence économiser oto économiser leneen ma ne président moo ñu jig président moo jig réew mi bi mu fi toogee ba léegi wax leen ma dërëm bu ñu yokk si si si denrée bi amul ana plan tàkkal je crois que amna fu baylo don wax wali euh, wali jawo moy gay plan tàkkal yoy ñu ay milliards ñu ngi sanni ci all bi muy alalu askan wi mënatuñ ko jëriño bu ñuy wax nañu wax si lolu lolu moy yak Tay, fi keur Mbay Fall ñu ngi doon joy yoon yi sha allah ndax tali bi léegi dina genn ma Kër Massar dina genn Zagba te dinañu amaat fond fi muy trois sorties kon buñu yakamti Bulle nañu xaar tuuti rek bu lepp paré mu neex terre bi ñepp lay arranger ñepp ñu ngi jaar naan ñu ngi daanu metti na mais bala nga omelette faaw nga toj nen bala ngaa omelette faw nga toj nen gerte nag kenn du ji kaani di góob gerte di kenn du ji kaani di góob gerte musul am fenn te du am ji gerte góob kaani amul fenn président li mu fi def macha allah macha allah bilam buñ si dee woon ñaar rek fal na ko man de ilaa tubaab bi rek doy na ma. parce que fa lay noyé waxantuma la nak ak jam ñaajo jii boo ma ci bureau yi damay défé né sax ma nga États-Unis kon nañu taxaw inshallah allah ko xamné yaangi ne kër Mbay Fall té nga xamné bëgg nga ma té nga xamné ne am nga ci man yéné même sonko wala sonko bu dee sa mbokk sax jox ma sa kart may ma ko ngir Macky sal ñu teg ko ci loxo suñu coordinateur mbaaw am ndam ñu jébbal ko président ndax bu ñu déggee wiiw mbaaw bu am solo moom dina kontaan te ñu di dinañ kontaan président dina kontaan te li mu bëgg bu amee kër Mbay Fall dina sekki kon taxaw leen dugaat ci kër yi wax ak nit ñi bu kenn des mën naa ne cette fois-ci sonn ma sax ci pare ci porte porte yi fii ci kër Mbay Fall parce que responsable yu si ne ñaax naa leen kër ñi ñi dendal yëpp nañ fa dugg wax ak ñoom mottali lépp fu ñu jaarul ñu jaar fa mottali ko ba du ñu muy mag muy ndaw ñëpp ñu jug vote ji incha allah Kër Mbay Fall ecole monsieur Diouf bii képp koo xam ne sa carte d'identité numéro 27 la ba 36 fii ngay voté ñi si des nag ñooy jéggi raay bi wala ñu jéggi pont bi kon loolu neex na bus bus ba nak nawon fanon na ngeen daan taxawé wër biro wër wër école bi jëli nit ñi génne leen ñu voté bala 1 heure ñu né Kër mbay Fall rawna département bi ñu am 98% man loolu la bëgg japp leen ci ngeen taxaw inshallah defat ndey Fatou jërëjëf jërë ngeen jëf merci beaucoup